waa gars yi dañu bëgg rek ngeen xam ne ndigal li wàcc na. Naby Vision ndigal li wàcc na. di déglu bu baax di député honorable Ayib Daffé setina na Ousmane Sonko. di honorable Biram Souleye Diop seet na Ousmane Sonko. donc ñaari député du peuple yooyu ba ñu demee seeti ku sell li nga ngeen di layam layame wala moom la gars di layam layame démb ba léegi te xam naa ñan la nag ndax man di wax ak nitu Macky Sall yi la ak ay lieutenant maanaam ak ay mal euh, l' association des malfaiteurs maanaam ñi ànd ak Macky Sall te ñun ñëpp ñu xam leen waaye dama bëgg ngeen concentré wu te xam ne Sénégal du réew mu Ousmane Sonko du négocier Ousmane Sonko leeral na leeral na àdduna bi yëpp nee na moom du négocier ak nit koo xam ne moom moo torxal askanu Sénégal bi yëpp benn groupe bandi bi rek ngeen di gis. manam le les le système comme niñ koy waxé toujours mais concentré wu leen Sonko dafa né jomaay moy Sonko Sonko moy jomaay né nañu concentré wu ci li nga xamné mom moy élection yi le calendrier électoral du 25 février caaxaankat yi di caaxaan bàyyi len leen ñu caaxaan tappalekat yi di tappale bàyyi leen len ñu tappale gars yi Alioune Tine mi ngeen di dégg ak ñeneen c'est la société civile il fait son travail c'est ce qui l'intéresse voilà may leen ko ko bàyyee bàyyee leen ko ko na dem na négocier ku ko neex na waxtaan ak ku ko neex mais c'est la société civile ça sa son droit ma bàyyee leen ko ko mais aussi nañu am cër ci président Ousmane Sonko comme ni ma leen ko waxee dégg président Ousmane Sonko capacité xam-xamam ak ni muy xalaatee yéen ku leen ne kooku dundal na boppam ba yegg fii muy rey boppam ndax benn deal loolu war ngeen koo bañ a gën

Macky ñun négocié wuñu ak yow waxaale wuñu ak yow te billaahi balaa nga koy xam le 25 février jëm les sénégalais focus la dem leen jëli seen carte électeur Macky xam na ne élection dafay am Macky xam na ne incha allah le 25 février bii di ginnaaw loolu moom passation de service lay def passation de service boobu moo ko feebar gars yi leneen ma laaj leen barki démb ba léegi dafa mel ni man déggatuma Macky Sall ba est-ce que Macky moom mooy président Sénégal ba léegi est-ce que moo yor pouvoir parce que déggatu ay ndàmpaate kat laay ak ay répression waaw gars yi seen deal bi nekk di defa am marche wala deal deal bi dul dox noonu am na nag deal moom bu ñàkkee xorom maanaam da ngay dem ba kenn du ko xoromal daanaka man gëj naa dégg Macky gis naa tey euh, yaayu aji Sarr di bind Moussa Fall naan c'est le seul constant depuis nangam Il concentrez-vous sur l'essentiel restons focus sur l'essentiel c'est le Sénégal qui nous intéresse et on aura les élections Inch'Allah, le 25 février focus les rek Dina ñëwaat ci kanam nak waxtaan ak Il y a fi bu toll